Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf juróom lañu seeni kanama ubale yéene kay rap

xam ne moo di procureur spécial jiite cour répression enrichissement illicite démb ba muy jën ak xabaar yi la mu xam moo di alal ju lewul ju fi waay làq da ko indi réew mi quotidien ñu ñane woon ca nguuruk Abdoulaye Wade di fa buur di bummi jamono ji ñoo ngay tàmbalee daanu benn benn populaire nañu ku ca daanu gisuma la mbaaw ne lu mu gàtt-gàtt ñooñee ñu fi li ñu leen di toppee bu dee dëgg la ku ca nekk mën ngaa tëdd juróomi at ba fukki ati moom Karim Wade journal bi nañu mooy ki nar ubbi sabar gi ndax fukki fan ak juróom ci weeru novembre gi dana dem janowaat ak enquête kat ya keneen kuy janoog yoon ci bés boobu di fukki fan ak juróom ci weeru novembre le quotidien nañu moo di Abdoul Mbaye premier ministre bu Sénégal coowal njuuj njaaja ki léexoor moom la koy toppe yëf ci atum la woon fukki fan ak juróom ci weeru novembre gi ñu nekk ca la ca cour cassation di wax journal ministre bu Sénégal ak seen ndaw suñu naan Charlotte Faye Yadd di analyste risque ci atijari waa FABank te ñoom ñooñe rek ndax am na benn waay bu ñu naan Mamadou Dieng Tanor Ndiaye nee nañu ab notaire la boo xam ne moo leen jàppale woon ci yëf yi commerçant bi moo leen topp ci njuuj njaaj ñañuy toppeek yàq di cantaako ni Cheikh Béthio observateur nañu mbir mi lëfa ca ndax daa mel ne coow loo xam ne deret moo ko lal ndax avocat général bu cour d'appel ak ba fukki fan ak juróom ci weeru novembre ñoom it ci àpp boobee ca la ñuy xam fan la ñu ak yoon wi jëm ca palais de la république ca lay tegu ànd ak le soleil dem xooli la xewoon démb ca conseil des ministres bañ fa doon amal yéenekaay bi nañu njiit mi Macky Sall dellu na ca la mu santaane woon ci weeru avril moo di njëgu dund gi ñu wàññi ko nee nguur gi loolee mooy jëm waayam ku dégg bëccëg dana ci def kemtalay kàttanam ba askan wi seenu a yóbbu ca ministère des sports di épkat ba maanaam d'artagnan wala boog ji jiite woon fédération escrime di mbañik njaay jot na lenge ya direct info nañu démb la ko ko maali gàkku jébbal la gàkkook ay kàddoom ci xët mu njëkk journal bi muy xam le ne ma ngay jóge ca bopp ministre des sports waaye xol bu fees la fa jóge ma jóge ci journal boobee soppi beneen journal waaye des ci sport bi maa ca sunu lamb ak sunu lamb mu xëy tey ji ci waxtaan woow séq ndax moom munta toog xaar kañ la ñuy gis ki ñuy xaar mu di ki war a wuutu Joseph Koto ci bopp équipe nationale bu Sénégal stade yéene kay nañu état bi dafa mel ne jamono ji nit ku weex moo ko gënal maanaam dem jëli ab tubaab ñu tudde leen ay sorcier blanc dénk leen équipe nationale bu Sénégal kañu ko dénk ndéegum di Mayacine Mar moom it ay kàddoom mi ngi ci xët mu njëkku stade yéene kay Mayacine Mar ne ñi ngànk footballub Sénégal li ñuy wër ci réew mi mënuñu fee gis ku ma tane